Oustaz Adi Niass ñi ngi lay ziar di la dalal jàmm fii ci seen émission thème de la semaine tey ñu indi woon li nga xam waxtaan wi nga xam ne moom moo di conférence conférence yi gis nañ ni ci weeru koor fii ci Sénégal day bari torop torop torop torop lu tax duñ koy def ci yeneen yeneen wax yeneen jamono yoo xam ne du jamonoy koor.
jërëjëf Ndoye Bane maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeur fu ñu mun di nekk ci àdduna bi di nuyu mbokki jullit ya lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ndokkeel mbokki jullit yi fu ñu mun di nekk tamit ci sëru ramadan al mubarak bi ñu nekk di ñaan yàlla nangul leen ko nangul ñu ko nangul ko mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk. Ndoye Bane xam nga daal li ëpp ci ñun dañuy nekk di ramadaani yiin bañ a nekk di rabbaani yiin rabbaani yiin boo ko nekkee kuy dellu ci yàlla toujours toujours. sa jaamu yàlla doo ko wékk rek ci weeru koor bu weeru koor jeexee nga ajaat ko te loolu moo ci bëri ni nga nemmeekoo noonu gis nga tey bi weeru koor wi teroo jàkka yi commencé nañ fees yaa ngi gis ne tamit colaay yi commencé nañ soppeeku ci mbedd mi nit ñi sol sol colaay yu yiw yaa ngi ciy nemmeeku ne kurus yi tamit bëri na nit ñi yore seen kurus yi kaamili alquran yeeg téere yi tasaaroo na tamit kenn ku ñu nekk yaa ngi ci yore waaye lu ci ëpp bu weeru koor yu demee bay bëgg a jeex rek dàkk jàkk yi commencé nañoo vide nga gis tamit kurus yu bëri commencé nañ koo aj kaamil yu bëri tamit ñi delloowaat ko maanaam ca fa mu nekkoon loolu nag suñu feebar la waaye su fekkoon ne dañoo bëggoon a dund lislaam dëgg dëgg dëgg dund ko dañ koy dund ci wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin jaamul yàlla fekk yàlla ngi lay may ngay noyyi fekk deewu goo rek foo toll del jaamu yàlla fekk ba ngay deexee waaye bul jël jaamu yàlla di ko wékk ci aw weer bu weer woowa paasee nga nekkaat ci leneen. looloo waral sa wékk gi ñu wékk conférence yi ci weer bi bëril ko ci moo tax sa dañ dem ci fatt nit ñi. conférence yi bëri mbedd moo dem fekk fa maanaam ay ay conférence lu ci bëri bi.
waaw ci loolu laa jëmoon baare tali boobu ñuy baare tali bi di def seen i conférence souvent su waa quartier boo waxee sax dañuy yaakaar ni da ngay xeex lislaam ak ñoom seen est-ce que baare boobu ñuy baare tali bi di def seen i conférence est-ce que mën nañoo wootee ni mën nañ koo tuddee lor lor lor askan wi. te dafay daan ni lislaam bëggul kuy lor askan.
waaw Ndoye Bane xam nga lislaam moom du diine juy toppaloo kenn yàlla balay lorloo sa morom diine la joo xam ne dafa bëgg foo toll ngay jaamu yàlla waaye foo topp foo toll tamit ngay topp yàlla. topp yàlla bu ñu ko waxee mooy sa digganteeg sa borom mi la bind suñu waxee jaamu yàlla mooy jaamu yàlla ci ay jaamam. amal leen njariñ te bañ di leen lor ba yonentu baa ngi wax ne laa darara wala diraara diine lislaam dugu diiney lor waaye dugu diine diiney loru te xam nga nga ne yaa ngi def conférence wala ngay def yeneen lu mun di doon ngénte la ba maanaam mbedd yi ndakaaru yi ni mu xatee nga baaree mbedd nit bàyyee ko fële ànd malaatam ñëw soobu mbedd mi mënta dee génn malaat booba mën naa dem balaa wéri jiwaat beneen koñ sax ba mu yegg fi ñu koy war a xeetli ko bakkan na mën na caa des te loola yaa ko sabab te yow xamuloo loola loola tamit mën ngaa gis ni koo xam ne mi ngi war a dem ne day liggéey soo bu mbedd li ko dese ci waxtu bëriwul mu dem a dem ba foofu fekk ñi baaree ko na muy retourné waatee bay dëppaat ba ne ma ngay demi mën naa tax maanaam mu tardé te la mu waroon a taxawee li ci aju la ci aju dafay bëri lislaam dafa bëgg daal bépp ak topp yàlla goo xam ne yaa ngi koy def bul ci dëgg di lor di lor nit ñi julli li muy foor foor sax bëggu tey nga taxaw ne waxtu julli wi jot na heure bu ne nga ubbi say rajo yi rajo yi yooxu ca kaw dëkkandoor yi di loro yeneen yi ci aju tamit loola lislaam d'accord ko lu ci nekk mën nañ koo def ca nam gënee defee ko tamit ca nam ca nam gënee am ca yàlla te fekk tamit du ñu lor suñu benn suñ mbokk bi suñ benn mbokkam doomu aadama waaye léeg-léeg tamit nga jaamu yàlla ba foog ne yaa ca nekk payoor goog nga waroon a jëlee ci jaamu yàlla ga gàddul nga ci sa sa moromam nit àq joo xam ne boo ko ko fayee moom moo lay topp waaye dootoo amati lu ñu lay topp kon yooyu yëpp Ndoye Bane dafa jara baax kon daal mbir moom mën nañu ko àtte ni àq la ak lor ju rëy rëy lépp loo xam ne day lor nit rek ak lu ko ci lu mu mën a doon rek loolu lislaam du ko nangu waaw boroom xam-xam ba ca baas ba nga xam ne moom la ñu jël nag pour mu def mu de mooy conférencier bi mooy oustaz ba mooy imam ba mooy sëriñ ba nga xam ne moom moo nekk ca baas ba war a waxtaan ak ña ca baas ba xam ne ñii organiser lii ñi ngi lor askan wi ñi ngi lor waa waa dëkkandoo yi te waxuñu leen ko kooku moom luy àtteem waaw oustaz bi su xamee ne fii ñu tànta dañuy baare ay nit yëgal nañ ko ne ko dañ la conférence loo place sàngam mu xam place ba mbedd ma na mu mel balaa war a nangu di joxe kàddoom dafa leen a war a wax ne seet leen beneen place place su publique yi bëri nañ place yi nga xam ne ay saala nga fi tamit ñi koy able yi ñi koy luye mi ngi fi ñu mën faa defee ay conférence su fekkee nag moom xamu ci dara dañ koo woo ba mu ñëw ba yegg si rek door a gis noonu moom nag du ci am bàkkaar sañ na ñëw wax leen diine wax leen tamit lii ngeen def nag lislaam nangul ko su beneen yoone ñi mën ko jël matukaay loolu maanaam bañ leen a mën a dal waaye képp koo xam ne bala nga caa dugg moom xam nga ko war nga leen a wax la ci lislaam wax bala nga caa dugg waaw mais film nii mën na gars yi dañuy wax naan traitu traitu ustaas yi la Waaw.
maanaam conférence dañuy conférence ñu leen di fay est-ce que ustaas bi wala conférencier bi dafa war a conférence ñu koy fay waaw euh, ustaas yi yemuñu am na ci ustaas yoo xam ne mënuñoo conférenceal kenn lu dul da nga leen a fay al- xaalis bu bëree bëri am na ki ñoo xam ne dañuy bëgg sax doo wax ak ñoom direct dafa am ñooy wax ak dañoo am ay coxeur ay coxeur yoo xam ne ñoom ñooy togg marché bi ba mu ñor ñu door a maanaam jël loola teg ko ci loxo ustaas bi loolu tamit nag lislaam bëgg ko lislaam lan wax de yonantu yi ku bëgg a wax nit ñi dëgg daal doo leen fayeeku da nga leen di bàyyi ak seen sago lu ñu am nag ñu jox la yaa xam bu ñu la joxul dara tamit nga ñaanal leen yàlla ndax message bi yàlla jox ustaas yi bu ñu ko xamoon dañoo waroon a waaraate ñoom ñi leen di fay maanaam dañoo waroon a waaraate di fay nit ña ñuy waar suñu xamee la leen ci yàlla bàyyi xel waaye duwul na ñoom dañoo war a waaraate jàllal bi ko tamit di fayeeku ndax yeneen yonantu yi xam nga ku si nekk boo daan wax dangay wax ne qul laa as'alukum alayhi ajran in ajriya illaa ala Allah man de laajuma kenn dara sama payoor yàlla dong moo ma ko mën a fay te ñaareel bis boo bis boo demee ne yaa ngi conférence di fayeeku ñeent moo lay xaar bi ci njëkk gis nga boo ne damay fayeeku gars yi def ci seen carte yi ne 9 heures lañ war a dajee wala midi heure boobu ñuy wax la convoqué dafa la fa la dafa la faa war a fekk comme yow nag heure bi ñu la convoqué fekkul la fa lekk nga àqi jàpp rax dañ laa fay ñaareel bi tamit comme dañ laa fay lu neex nit ñi nga war a wax dañ laa fay lu leen neex rek nga war a wax ci loolu laa bëggoon a ñëw parce que suñ la fayee ñoom ñoo lay jox Ñoo la tem moom.
ñoo lay jox tem lu le- ñoo lay jox tem ñoom jigéen ñi ñoo ñoo naan la li wala ñi organiser conférence bi ñoo naan la lii lañ bëgg nga waxal ñu te damay gis ni conférence bi su ustaas bi nitu diine bi nga xam ne moom fa nekk moo fa nekkal yàlla su toogee di wax ci biir baas bi rek euh, de gis na fa lu mu mën a conférence ci biir baas bi Euh, ngay gis ay jigéen ñooy jéeg yu xeesal ba xasoo xurnu toog ustaas bi toog conférencier bi toog ëllëg ko mu wax ca du ca wax mag leen di wax ca xare Badar ak xare Uxud yi nga xam ne yooyu fa yàgg na te mën leen a wax euh, li xew ci jamono est-ce que du pay gi mu ko fay moo tax moom moo waral loolu loolu laa la wax nit ki eh, ku ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa soo wàccee sa bopp ba ne nangam ngeen may fay ñu yëkkati loola fay la ko ña la fay dootoo leen mën a waxati dëgg boo bañee ñàkk nag sa kàddu li yàlla wax nga di ko wax bul fayeeku kenn dara waxal leen li yàlla wax mu neex leen mu naqari leen suñ leen joxee dara mooy sa wërsëg bu ñu la jox dara pay yàlla gi doy na sëkk bu mooy bu njëkk bi te boo fayeekoo ñoom ñoo moom sa waxtu soo fayeekoo ñoom ñoo moom sa heure soo fayeekoo tamit ñoo moom sa kàddu lu leen neex nga war a wax te ñett yi nag kuñ ko boo ko génnee ci nit dara desatu fa kon daal conférence yi daal ni mu mel nii daal war nañ ko seetaan ah mag ñi daanuñ nanguwuñu woon loolu dañuy ñëw jàngal nit ki waxal ko ci diineem ba xolam sedd lu ñu yëkkati jox ko ñu xam ne loolu la Sëriñ Tuubaa daan wax ne addiya kenn du ko laaj nit ñi buñ ko imposé nit ñi garab la bàyyi ko ba mu ñoral boppam waddal boppam nga jël lekk fekk yaa doon toppatoo ci diin tool booba waaye nag su fekkee garab gi yow ñoragul nga bëgg koo nga bëgg koo gësam wala garab gaa ngi dund carrément nga bëgg koo daane su boobaa tamit yeneen problème lay indi baas ba ñuy baas ci tali bi tamit euh, mën nañu ko jàppee lor askan wi waaw ak lé àq.
lépp loo xam ne boo ko defee da nga lor ay doomu aadama loolu lislaam du ci ànd lislaam dafa ne laa darara wala diraara su fekkee da nga am pour jàpp ne ci yoon laa nekk rek waroo nekk ci yoon tamit bay tardeel keneen ci aw yoonam su fekkee da nga am na ci ñoo xam ne dañuy taxaw ne am nañu autorisation police ak wala wala préfet waaw euh, police wala préfet mën na laa jox autorisation te autorisation bi ñu la jox neexul waa quartier bi waaw loolu nag yeneen ño- su boobaa ñooñ jox leen autorisation ñoo yenn ñooy gàddu responsabilité bi bala ngaa maye res- maanaam autorisation ci nit ki di def conférence ci mbedd war ngaa xam mbedd moom mu koy defee man la ak loola tamit lan la war a mën a jur ak ña fa dëkk tamit ndax loola tamit lan la leen loola Est-ce que neex na leen wala neexu leen?
waaw loolu la waaye soo ko mayee maye nga loo xam ne moom moo ko mais euh, fi ñuy fi ñuy tënkee mooy askanu Sénégal yi mu neex leen ak mu naqari leen euh, bon ñu wax ko ak ñu bañ ko wax euh, baas yi ñuy baas mbedd mi metti na leen torop oustaz am na ñoo xam ne amu amuñu fuñ ko waxee man wër naa dëkk bi xool mais daal baas yi ñuy baas mbedd yi di fa conférence metti na leen torop mais amuñu fuñ ko jooyee waaye xam nga daanaka boo jëlee sax ne baas yi ñuy baas mbedd yi di ko baare conférence sax moo ci gën a néew da cee gën a fës ci koor gi rek waaye da nga gis ne nit ki ku am ngénte baare mbedd mi neexu leen ku am céet baare mbedd mi Neexu leen ku am fuural baare baare mbedd mi neexu leen de.
koo xam ne da ngay arrosé sa bag bi Baare- bi nga baare.
gañe nga baare mbedd mi léegi nag ñi nga xam ne dañu conférence dañ cee gën a fës rek waaye li ñuy baaree mbedd mi dafa bëri lépp loo xam ne yaa ngi baare mbedd mi te boo ko baaree yaa ngi lor say dëkkandoor loolu maanaam lislaam d'accord ci ak lu ko mën di sabab nag oustaz ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf jërëjëf ñun tam ñu ngi lay delloo sant di rafetlu sa émission bi. ndax ñu bëree bëri yaa ngi leen di gindi fexe ba euh, lu réer woon ci askan wi nga di ko gë- gëstu di ko indil askan wi ngi jot ko mën a dundal dama lay nirool ak benn waaye ci saaba yi dafa daan wax ne nit ñi bu ñu ñëwee di laaj yonantu bi lu baax man dama koy laaj safaan ba rek. lu tax mu ne damay bañ dugg ci safaan ba ak tamit mën a yee sama morom yi ba duñ mën a dugg ci safaan boobu. moo tax laaj lu baax baax na mais laaj safaan ba tamit baax na bañ mën koo xam ndax mën koo mën a moytu. te loolu jërëjëf.
tamit yow mooy sa émission bi.
jërëjëf jërëjëf, jërëjëf jërëjëf